yow kattal sa ndey laa wax comprendre ma tuunu ndeyam ndey nag kattal sa ndey boo fi waxaatee loo maîtrise wul dinaa génn def vidéo daqaar sa ndey maa la gën a dof fuuf boo fi waxaatee loo maîtrise wul naa génn toj sa lëfal ndey foofu laa yem. xanaa xam nga yow jox say say cas ak say dossier say affaire mais man maa maandu woon rek dangaa xamul rek mais gis nga soo xamoon barki Serigne kër si di nga moytu sa bopp du pas man de du ay menace de dangaa xamul rek barki alxuraan karim ñàkk réseau moo tax ma dugal connexion 4G pour wax ak yow kon foo arrêté man duma ñu nga foog nga naan ay taw ay bloqué ay patati patata dégg nga yow wax di xiisal te di saaga di dem man nee naa la séquma ak yow loolu kon duma ci dem ak yow dégg nga voilà dangay wax waxu nit ma tontu la tontu nit te bii mooy dernière fois may wax. loolu léegi yow de cinq ans du ma ko mën a ubbi. parce que yow comme danga mbaame sa biir xel comme xam nga ay ndoxu day moo ci nekk. comprendre nga da ngay dem fi nga xamante ne fa la mbaam yi di puubee nga waxtaan ak ñoom man doo ma indi ci say ñàkk fayda yii ah c'est bien beau nga toog saaga ngay ubbi machin mais arrête lan la lay jural lu lay jural yow tamit oh mais c'est c'est triste ah. je suis vraiment triste pour que Cheikhul Khadim li nga wax traversé wul sama xol mais xoolal je suis vraiment triste pour toi. te gis nga bés bo toogee bëgg waxtaan wala bés bo toogee dellu ci wat sa xel man sa yow ma message je suis là mais quand ta ay waxu dof yi man du ma ko séq ak yow. voilà il faut respecter les gens c'est ça la vie. adina lool la mais li nga def ni c'est trop facile vraiment tu me déçois beaucoup. xam nga nit di xuloo di xotteeku nga ñëw di ko blaser. man ko mo bëggul nga ya yëngal ma do ma ya yëngal. man fi may wo man duma ma la fa fekk da ngay wax ak sa nawle fi may wo du ma la fa fekk li ngay def ni yëpp maa la ko dàq waaye fi may wo ya, bu soobe yàlla duma ma la fa fekk. te bu ragal ni am nga benn makkaamati man ba ma lay jël di la bloqué su ma la bloqué dafa fekk man la neex est-ce que xam nga li ma lay bëgg wax. te moom laa lay tontuwaat faut arrêter man li ngay def ni yëngaluma. ay saaga nday ay toj machin ay machin tout ça faut arrêter yi yëngaluma faut arrêter xoolaatal sa bopp delloo sa xel. man ci lay wax man dama am force tranquille ku ma bëggul nga yëngal ma dooma yëngal faut arrêter. dëgg la. fi ma messager laa lay tontoo. te man yow yaay kan ba ma lay bloqué yow. man boo amee loo xam ne ñor na la da ñëw toog ñu jàkkaarloo ñu toog ñu débat ñu waxtaan comme des gens mais pas. ay sànnante wax ay internet machin tout ça commencé wu ma ko tënk du yow du yow laa koy commencé faut arrêter quand même du dëgg voilà bonne soirée. parce que mbir mi dañ naan noo bu ko tontu du sa nawle bu leen fàtte dafa am sénégalais yoo xamante ni dañ fi nekk di déglu n'importe kii li nañ waxante dëgg man da ngeen sa mës a dégg may dindi tuuma te lan lañ fi waxul safuma parce que du dëgg parce que du dëgg.

yéen tam di ko wala di kay même ko faut arrêter Il dama ne y a quelque chose derrière il y a quelqu'un derrière dafa am Il faut ne lii moo il neex mais dama bëgg Faut nous ne fukki kooku nous waa il fukkam bu ñu sama làmmiñ bii il borom bi subhanahu wa taala téye ko ma noppi